un petit parti qui, quand il est né, tout le monde disait que oh, c'est un parti de, de, Internet. Parti réseaux sociaux. Parti réseaux sociaux Vous avez des cellules founé sur toute l'étendue du du territoire ku ne di jóg qui des gens di jaay ay des lu qui gens. mu barkeel. dem ba ay nit dañuy feebar sax di len wo nan len walu len ñu sax ci xolu sénégalais yi ñu bëgg dem jëli ay wax comme li gens wax. wax yu ñàkk wax yu ñaaw ay nit ñu extrémiste ay nit ñu appelé au meurtre ñu jël ñooñu daad leen koy bëgg a coller mais yéen mënul leen yéen ëpp ngeen loolu ëpp ngeen loolu ndax yéen ci kër yi ngeen ne ne ci xool yi Ousmane Sonko kan moo ko mën a effacer koo xam ne am na ay nit ñu jur seen doom sukk jur leen tuddee ko ko kooku kan moo ko mën a ci effacer ci histoire politique du Sénégal existé wul existé loolu dalal leen seen xel waaw ragal nag yàpp yàlla la te lu nar a baax du yomb lu nar a baax du yomb de waaw jafe na nag metti na de jafe na metti na waaye Sénégal moo ëpp Pastef Pastef parti la rek yéen Sénégal ngeen soxla dépassé ngeen Sénégal yéen Afrique ngeen wut panafricain ñaata africain tay ñu yëkëti sen cadeau teg ko ci kaw Ousmane Sonko diko soutenir ci combat bi muy mené diko ci soutenir diko ci jappalé Ousmane Sonko a dépassé le Sénégal on se dit qu'on va l'arrêter peut-être que lay jaarale nañ ko fi mak ci ci góor ñu mag ñi jaa jaaroon jaarale nañ ko ci fi dirigeant yu mag yi jaaroon fi ñom Mamadou Dia jaar wax ji kay fexe ba taxaw ba soor bi ñooñu am moom du ko am ba soor bi dal seex Anta du ko dal loolooy wax ji bañ a fàtte bañ a démobiliser wu bañ a démoraliser wu gëm yàlla gëm Ousmane ko jiital ko dem loolu kese mooy wax ji waaye jaaral nañ ko foo xamante ne Nelson Mandela jaaroon na fa Abdoulaye Wade jaaroon na fa jaral nañ ko ci yoon bi nga xamante ne ñoom seen Cheikh ak Pape Malick góor ñu baax ñëpp dugal nañ fa bëggee ne ndax xeex Sénégal Ousmane Sonko barki démb dong la ci espace politique bi da muy commencé politique man xamuma ko boobu maa ngi soutenir Karim Wade soutenir nañ ci Khalifa Sall waaye yàlla moo jël Ousmane Sonko def ko ci xolu doomu aadama yi lu waaye nit mën lu nit mën ci loolu ay waay lu nit mën ci loolu lu dul nangu mbañ ngi ma gis en bi ma dégg ci baat yi nit ñi di am satisfaction ndax tëj nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko dépassé na jëmm c' est devenu un esprit c' est un esprit dem na ba sax ci bopp nit ñi dem na ba ñi ko buggul woon démb doon xeex ak moom doon ko wax yi ñaaw ñëw nañu ba jubóog moom ànd ak moom tey ñaata baat ñoo jóg condamné li ko dal ñoo xam ni laale wuñu ak ñoom ak moom bant démb kooku mënatu leen ci moom dara nangu rekk nangu rek ngeen mën ci moom ñun ñi sax xamu leen li xew ndax ñun ñii ngeen jël foog ni jéem ñoo yàq wala jéem ñoo euh, sosal dina tax ñu bàyyi ko di ngeen ñu gën a buux bu max ci moom parce que ñun ay góor lañ bu ñu àndoon ak moom benn démb nañu ànd ak moom tey fukk yoon waa Pastef yi patriotes yi message bi yéen a ko moom bu leen raf bu leen gëmm bu leen dute te aussi li ma leen di xamal mooy bu leen toog bay waxtaanee waxi plan B ak plan C ak plan Z Pastef bu leen jéem loolu képp ku nekk patriote ànd ak Ousmane Sonko bul am dut bul xalaat bul xalaat

réseaux sociaux yi nga xam ne bu ngeen waxee ku amoon looy wax da ngay taxaw ñu couper internet bi dellu siwaat leen foofu remobilisez vous remobilisez vous Ousmane Sonko point te damay défier patriotes yi indi yónnee leen ma brasserie Pastef na ngeen fexe ba suba ci suba na ngeen fexe ba ci suba ci suba naa am sama brasserie Pastef di ko takk fii su subaak ngoon guddeeg bëccëg waaw dama leen di jàppale ci xeex bi ba ñu xam ni man ak yeneen gor yoo xam ne mosuñoo ànd ak yéen dinañ jóg taxaw jàppale leen ci xeex bi parce que nag vous êtes une bonne nouvelle pour la démocratie waxoon naa ko démb wax ko barki démb li ngeen indi ci xeexu démocratie bi bu leen gaa jaajëfalul du ay dissolution lañ leen war a defal da ngeen di ñëw fekk parti politique nit ñi di adhéré ci ginnaaw ay nit di leen topp ngir am lu ñu am di leen topp ngir leneen yéen ngeen ñëw di cotiser def seen xaalis def seen alal def seen doole gëm ki ngeen topp waaw gisagu leen dara Fatoumata Diallo demal tëddi nelaw demal tëddi nelaw Ousmane Sonko mënu leen ko yàq ay nit ñu baax doo nga ko bëgg ay nit ñu la bi dong ko bëgg pastef gën leen am pastef ay parti kurel né nañ dañ leen a dissoudre est-ce que yéen mën nañ dissoudre dañ leen a mën a de réew mi dañ leen a exiler ñu mëna ci mënul ci dara ci Sénégal gi vous allez compter vous comptez vous êtes un nombre et vous allez compter kenn mënatul def l'avenir de ce pays

dootu les nuits on sera avec vous c'est pas le moment bu leen wutal seen bopp ben ennemi bu leen mer bu leen ñaxtu bu leen xas kenn sénégalais yi bu leen jàpp ni génnuñu les gens sont choqués Asken wi am na lu ko metti sénégalais yip tay reeruñu ak akabare bari ñu reerul ñu bëri ñoo xam ne seen xol yi dafa metti parce que mosuñu xalaat ni mu bañ dina egg ba fii mësuñu ko xalaat pour ñoom non peut-être ay contrôle judiciaire wala sax dem ba tëj Ousmane Sonko mais dissoudre parti politique bu ay millions de sénégalais nekk ay élus locaux ay maires ay conseils départementaux ay députés kan moo ko mënoon a xalaat. Je parle pour ça, Souleymane. C'est pour vous rassurer, pour vous redonner du courage. Ce message, c'est pour ça ku am ñak courage rek duggal ci live bi nga déglu ko nga xamni yeen kenn xolal yeen ñi leen bañ def leen leen li gëna metti vous existez mais faites-vous voir avec votre optimisme ak seen gëm-gëm ak seen ay cœur gën leen taxaw photo Ousmane Sonko yi na gëna tar publication yi na gëna tar na gën a tar ci réseaux sociaux yi ndaxte kuy xeex ak ku bañ danga koy fat li ñuy bañ bañ koo gis bañ koo dégg won leen leen ko ba ñu overdose kay merci Eva jël silma ko jox ma ko ma takk dinañ takk dinañ leen jaayle ay bracelet dinañ takk dinañ leen jaayle ba mu neex ba mu neex ndaxte nag démb yéen Pastef yéen patriotes yi ne taxaw fii boot ñu rogganti ñu tey dinañ leen boot rogganti leen ku ñu tudd wala ku ñu wax lu naqari xamuñu leen xamu leen ñu may yéenay taxaw defante ak ñoom xas leen wàccee leen tata noppil bul tontu di ñu tontu kon tey bu leen dara metti tey dinañ leen boot roganti leen fopp leen ba du ngeen laal suuf ngeen xam ni Ousmane Sonko fee mu ne du dara position géographique rek la fi mu war a nekk nekk na fa ba pare muy biir xol yi biir xol yi dugg na ci ba pare fexe leen nag ba foofu bu leen ko fa génnee virgule bu leen ko fa génne virgule